jotaay bi maa ko sàkk woon man caam ndaxte sama grand frère bi man du ma nangu kenn di ko attaqué man caam du ma nangu kenn di attaqué sama grand frère ma taxaw di ko seetaan du ma ko def ndaxte grand bi dafa jël cër cër bu dafa am cër bu ma jox man woo ma ñu toog ñu waxtaan ba pare mu ma caam damaa bëgg nga woo waa kër yëpp ñu toog nga jël bi nga wax loolu dafa rëy grand yow amuloo sa jeune frère ba pare ah di ko rëq dafa loolu déedéet mën nga amee beneen comportement mën ngaa voyager dem ñëw yor see teraanga beddi ma <laughs> teraanga dóor yow yow li nga mébét ci man ah ñun ñaar rek ñoo ko xam keneen xamul waaye adduna mi ngi suñu kanam xam nga umu mu jeeg xaaxaa jeeg da koo jarul <laughs> parce que yow doo am sa grand frère eh. mu jóge mu jógee fële ñëw nga ñëw taxaw naa grand bi ko Côte d'Ivoire Gambie la jóge looloo gën a ñaaw. wax nañu Kédougou am nañu wax Kédougou. am na sax ñoo xam ne nañ yee Kédougou la jóge nee balaa ne woon di gas. loxo yi boo ko xoolee loxo yu gas or. kii kii loxo yii loxo gas or la. lii loxo business la. Hmm? moo tax xam nga aussi nit yi suy wax day ma renseignement yu baax wóor. grand bu tabee ni man musuma koo gis man. a bu yore alal nii man musuma koo gis man. grand bu baaxee ni man musuma koo gis man caam. Eh, xam nga la ñun dégg la man yow bokkuñu ndey ak bàyyi bokkuñu deret mais li may defal doo ko sax defal keneen. ma ne su nga bedd ba sànni ma. yow noo bokk ndey ak bàyyi jàppal noo bokk ndey ak kon jeex na te ci nga koy gën a xam. kon baax na ndey ak bàyyi du jàppal ñu ñoo bokk ndey bu fekkee ni dangaa waane ñu pikiir la am luñ la jox tax ni nga mel ni ku ndekkee rajo waaw tamara kii boo koy défendre mënoo koo défendre. Eh, xam nga li ma la suñu mag la mais jubul. waaw waaw kii escroc la. Eh. trian la xam nga li ma la wax. mais doxaanam doxaanam ko xooñ gi man ñu doxaan yooyu ñu weesu nañ ko ba ngay tëj Côte d'Ivoire maa ngi dëpp Sénégal doxaan rek bu ñëwee fii wàññeeku doxaan ak takk bu ñëwee ci man wàññeeku yaa ngi dégg li nga yoreel nit ñi jox leen ko bàyyi trian bi. moo gën de waaye yow lan kaay eh, man ñun dañoo sonn muy ne fii di taggaate da ah, yow léegi dañ laa transformé ne leen nekkatoo sama rak sama géwél nga yow kañ ngay noppi waaye yow kañ ah. noppee ma noppi bu ngeen ma noppi ma noppi yaa ngi moo ma yem eh. yéen tuuru leen ñun am ñu temps toog fi di leen tuuru leen man damay <laughs> xam nga tur ma ne li ngeen li ngeen fi taaye laaj lañ bëgg mu leer. da ngeen bëgg ñu tuur. waaw da ngeen bëgg ñu tuur. waaw yéen kon baax na. yow da ngaa jubóog dama ah, kii dama yàlla tere man mii da ngaa waxul. Eh, eh, déglu man mii waaw lan faale ma ko compté ma ko. waaw d' accord kii xam nga ne. kii waxate yéen xam nga lu ngeen faale. yéen yéen xam nga lu ngeen faale. Hmm. ah li ngeen faale xam lu tax ma woote kii ngi mel ni bopp nit ngeen ci def. gis nga de yow xamul tax ma woote. grand ñaata loolu la yore yow. cinq millions la ma yore. cinq millions un million cinq cent million waaw. Euh, ak kan. xale euh, oh, bi yëpp enveloppe bi un million premier cadeau. bu ñuy a fen ak priant. Euh, kii Ba. la grand bi yore. un cinq cent. un million cinq cent. un million cinq cent yi. mi ngi nii hmm. garanti woon ci xaalis bi mu leen yoraloon ñu téye ko bëgg koo téye euh, gendarmerie. ma garanti ko. bind naa sama lettre ba désisté naa sama yoon newatu ci. Ah. un million cinq cent ma ngi nii jox ko. Eh, dafa ma décharge. da def décharge teel ba teel teel non non da nga koy téye ba mu def décharge. wane ne jot na un million cinq cent. bu la koy joxul bu ko jox. yow borom weer yi ñaata la grand bi loolu ñëw. 5 mu ngi nii def décharge. dafa décharge fii laa ko eh fii ko joxe fii. eh sa 5 millions dafa décharge ma jox la ko. jëluma. eh jox ma man maa nangu. Eh, damaa bëgg sama laam bi ndax maa ngi ci sama yoon sama yoon a ngi ci du ko téye. xadi mu ndaw. xaalisam bi. mën naa ko génn. mën naa ko jëlaat. kam la jox xale bu ndaw. ci maa fi. yaayam di def décharge jox ko kenn ku na jot nga. kii maay secrétaire am. Ah kii xaalis la. waaw bàyyi ma def sama décharge. dërëm du yëngu doo def ndànk yow. yow doon lañ la jóg a miinoo yi sax yow gaa. grand damaa bëgg ñu waxtaan. boo fàttalikoo bis bis ba bis ngay tukki non boo fàttalikoo bis ba ngay tukki li sam papa waxoon li sam papa waxoon xaw ma yaa ngi koy fàttalikoo wala déet waaw ne la woon àdduna lu mu métti métti na nga uuf say rakk waaw say rakk bu ñu la dee màtt na nga muñ waaw seytaane nag dafa bëri doole. Ah, seytaane daa bëri doole. waaw waaw dafa bëri doole waaw. ñi ma doon wax naan ma lekk nañ ko dem na kër Binta fa la ko tasaare doxaane ko. xam nga ñooñu ñu tey ñoo nekk sa wet naan la di la tag yow yaa ni ma dem nga fa seytaane yow invité nga ko yow yow yaay seytaane yow invité ko fa moo ni invité nga ko fa reer mais dina ma lii de ci balaa ko jëlee mi ngi nii tey mu lay tagg waaw man mosuma laa wax lu ñaaw sama mbokk ne le waaw nee nañu les chiens aboient la caravane ah. Ah, kon nag waaw boobu leen du tee may dem ak sama gàngoor hmm, ndax yow ba ba bàyyi tontu yi dañuy waxtaan fii léegi mag ñi ñooy wax dangaa war a noppi waay yow kii du sa morom de da ngaa war ma nax moo gisat da a noppi kii mooy kilifa kër gi ah bon foofu ma ji kii mooy kilifa kër muy nekk fi mel ne ah, benn ñebe tey la ko doon tey ko doon moo ko mës a doon yàllaa ko def mu mag ñu eh, léegi liy jeexal waxtaan wi mooy daa mébét boo xam ne nii nekk na ci sama xel. nga yëgale ko takk gi moom yàlla na am ak jàmm ngeen am ci doom yu barke mi mm. dama bëgg nu wutagun appartement meublé ba ba ñuy tabax terrain boobu ah, ñu commencé woon ci suuf. foofu moom duma fa sëyi man kay. yow fa sëyi. bu na fa demee. Mm. neegun fa. eggale liggéey bi toxu fa maa ngi yow ba nag mënuma laa bàyyi ndax sama deret nga waaw ah, bàyyi sa benn rak waaye bu ma la jàppoon ñaar fukk hmm. genn walla ci des ndax ba defoon naa ne dooma taxawoon li nag man bi ma ñëwee ba tey bëgguma sa bëgg sa bët xonq mais di su ma ñëwoon woon leen ne lii laa yor nii ngeen may def rek aj ma ca kaw waaye seet naa ba xam nag ñi ma téye ak ñi ma téewul waaye mbetteel bi ma gën a am sama àdduna eh. mooy binta mii kii nañ cee sori woon trop binta mii bi ma ñëwee ba tey dellu ma Côte d'Ivoire ndax toog ci moom bëggoon koo dalal bëggoon koo defal ay teraanga bëggoon koo jàpp waxoon naa la ko ba ngay toog fi naan fase naa waxoon naa la nga def ndànk ma bëgg ko te bëggantuwuma ko jox ko sama xol loolu dañul di hmm? ah moom nag xam naa ne bëggul kenn dërëm la bëgg yonent yàlla dërëm moom la bëgg ginnaaw moom la bëgg moom lay jaamu yàlla nattu ko mu yor doom joo xam ne mooy jëkkëram mooy ndeyam mooy baayam mooy nijaayam mooy maamam hmm. mooy léppam mooy yàllaam mooy yonentam léegi nag ah kon alhamdulilah rabbil alamin nan dem bu ñu ñëwee jaar ji yesu yesu ni jeex na naa amatoo fi gel waaw baax génn nga wuy grand wuy ma mu toog sa jikko yit grand waay ba ma ñàkk sama nekk ma ñàkk billaay grand yow tamit waay ba bàyyil yow tamit yow tamit waaw bàyyil yow tamit tamit nag grand ko waaw bàyyil ñëwal ñëwal am na loo xam ne ni ci famille lan koy wax waxoon naa la bul teel a fase waxoon naa la ko ma yow eh. ma daal bu teel a ko si te doom ju réew ji loolu dafa la ko. dafa ma tey saa su réew. alhamdulilah foo fekk coog ma day. yow laay waxal. bu yeboo nga wuti beneen far waaye far bii moom jeex na tàkk amatul génn amatul baale amatul def appel vidéo ba 4 heures du matin ba léegi sax des fois fajar gi dalay rëcc wutil beneen far waaye bii moom relation bi jeex na te mënoo ci dara nag noppil. yoo xam nga nooy def. il faut ma def la loo xam ne samay. saa wala yaa sa jooyee moom ngir yàlla lii ay jooy faju ko wala jooy ngaa jooy ba sa baat bi yàqu. jógal taxaw taxaw xale bi jàppale ko ba mu génn ci léegi jàmm ah li jotewul ak bakkan dara astum na ci génn bàyyi li ngay def góorgóorlu nag yow tamit. sën sën xëy na dangaa gisul awa. waaye man mi jàkkaarloog sama doom aw ma ci moom yaakaar. ak ëpp naa wax yooyu. wallaahi awa ni ma ko gisee ma ko gisee sën. doy na waar. bu mu jëm kaw awa dina dellu ci kër gi bu soobee yàlla loolu da yow. loolu laa ñaan yàlla. médecin yi léegi moos. laa ñaan yàlla. waaye kenn du xadi baaba moo ngi ne tey fii mu dëju tey moo fa dëj boppam xadi baaba war na woon jombale boppam di woolu awa di yàq Akady Baba ni ma mel moom pour ko jaral li moo ngi nii tey ji ñu jàpp ko te dugal ko ci kaso bi ah avant sama doom jaa nga ne ci hôpital ba tëdd nekk ci diggante dund ak dee man may man ndayam ma toog fii jaaxle xaw may def Akady Baba dama xam lu ko war a jaral li ci àddina moom mii mos ga xam ne nday awala nii nga ma ko nettali moo daan boot di raxas di lu ne moo ko daan def daanaka ci moom la daan yendu xanaa fanaan la deful woon ci Xadi Baba lii lu ko ci xiir damaa xam damaa xam ba pare nee nañ am na keneen ku góor ku ci impliqué wu koo xam ne moo leen jox xaalis. ku góor waaw keneen ku góor. góor astu ah loolu la ñu ma jaaxal wax ko la war doon. man xam kan. awa boo ko laajee moom koo mën a wax mu xamul kan la ku mu ne xamul kan la. Ah, man de góor kooku moo war a doon ah doy na waay góor kooku daal. mu toll nii ci lañ ci lañ ci moom lañ nekk nii ndax Khady Baba laaj nañ ko nangu la wax awa mënut a tontu kenn ndax gis nga na mu mel melukaanam ba fu tëdd mënul tontu kenn man nag am naa lu ma naqari Khady Baba yaa gën a maa def lu ma metti ma koy muñ gis nga ko ni mu nekkee woon sama xarit xëy suba ñëw bokk ak man sama jëkkër xëyaat suba jël sama doom dugal ko ci tuux yi dund bi waaye nag bàyyi naa lépp ci loxo yàlla ko góor ki nga ma wax ma yéem san bàyyi ma dem damay préparé damay delluwaat hôpital nii. naa fa ñëw ci kanam man mii naa ñëw ci kanam. baax seetaanal ma ko yàlla baax na. am na yàlla saafara lépp. góor ki la xam kan la war a doon. waaw yow yow hmm? ci benn restaurant wala. ah neex na. waaw mën nañ faa dem ah. dugal la ci VIP boobu. waaw grand problème bu amoon da nga koy fàtte. <laughs> dañu dem Palais d'Or. waaw baax na ah. kii de duma ko wuyu. nañ fa dem kan waaye bul wuyu bul wuyu bul wuyu hmm. xaalis rek lay laaj. xaalis dong lay laaj. Sénégal ku ci woote xaalis lay laaj. Sénégal mu daal Sénégal yàqu na. salaamaaleykum. waaleykum salaam ah, seen waay. jaam na ngeen def. rek ci jàmm. naka liggéey bi. ça va alhamdulilah macha allah. Ah, Cheikh. waaw. Euh, kontaan naa ci yow. alhamdulilah. li tubaab naa je suis très content de toi. man daal sama xol sedd na guy. bi ma yëgee ne bor yi nga amee woon ci kër gi yépp fay nga ko. ndax noonu dañ ne woon mënu ko to du ko def. waaye ba nga ko defee lu ñu wax rus. sama xol sedd na ci lool. bi ci des mooy da yàgg jëf lu baax ci biir kër gi. yàgg noo teral yàgg noo defal lu baax. Mm-hmm. dégg te teraanga nag nit boo ko def nit ki boo ko terelee war koo fàtte fu mu mm-hmm. toog da ko war di wax mm-hmm. man amel naa lu njukkal yal na yàlla defal la jàmm seen yàlla guddal sa fan wéral sa cër kontaan naa bu baax teraanga gi nga defal waa kër gi yëpp it jot naa ci mm-hmm. waaw waaw jërëjëf <laughs> waaw ah. euh, dëgg la kontaan nañ ñun parce que am na leneen lu noon yi wax te nga fàtte ko muy noon yi nee nañu grand frère mm. ah, yow yaa dem kër Binta ah jël sa xaalis yëpp fa ko sànni. di baat te noon boo ko wax mi ngi den ak yow. di baat di baat rek naan nii te noonu boo ko wax. Hmm. dërëm lu tudd tant gaajo. mu hmm. ngi nii toog sa wet. waaye yow Thiam. waaye euh, dërëm waaw man yow bi ma toogee fii yow laa adressé wala seen. dërëm est-ce que yow laay adressé wu man. parce que da ci wax ji da tudd sama tur. waaw man noonu yaa wax. waaw lu kon nga génn ci sama tur. voilà man kii ànduma ak moom ngir intérêt. ah ñi ànd ak moom ngir intérêt gis nañ leen man damaa àndoog nag moom yàlla rek tax dégg di ko taggali ki maamam moo ngi toog duma ba ma fen dégg kon waxi naaféq yi ngay wax ak wax seytaane yi di jaxase man munoo maa jaxase kii kii sama nitu démb la tey door a ñëw rek leel rek leel ah naaféq pire mooy yow yow yow hmm. grand bi li nga ko wax lépp tey nga toog fii di ko taggali maamam yow ndax lan hmm. dégg nga ni yéeyaa yee grand bi fay nay borom te neewal nga ne gaa bi amatul dara parce que war nañ xaalis ba mu jeex. te ko yow yaa ko wax. ku wax loolu yow. Thiam waaw. lii sax duy bor li ma yoroon nii li ñuy wax nii bor duy bor ndax Binta dafa am partenaire yu ma ko booleeloon lool. Xadi mu ndaw dama ko du waroon a tabaxal kër ga des ko teg ci loxo ndax kak ko jaay nam ko jaayee baaxut. kër suuf boo koy jën dafa am ay yoon yoo war a aw waaye Sénégal du nu aw ca yoon wa bu awoon ca yoon wa ci man kon kon kon kon du ñu nangu suufam beneen ba ca des baa dema ko doon xitli ndax xaalis bu mu amee loon ay nit ma dem jël engagement gendarmerie bind ne maa koy fay xaalis man tiitalu sant naa yàlla ci li ma am wërsëg wi ma yàlla jox waaye ñi wër moom mii bokk na ci ñi wër di wax lu bon ci man. ah ah seen ah keroog ba muy wax ma tëdd. Ah. ba ma xale yi drogué. Ah. booba eh, sama xel ñëw na la mu wax lépp dégg naa ko. Ah. seen boobu xam naa ne. la mu wax kër Binta dégg naa ko. dem na ba yàq sama der ci Binta naan ko am na sax ñu wax ni. sawaay doonatul góor moo ko nee na dafa am ay ay doom yu muy naan doom yoo xam ne nii sawara si lañ koy wax waxam la de waxam la man loolu lépp dégg naa ko waaye man dama dut wuyu ay kuy waxi caaxaan mais xam nga looy def kii jox ko deux mille non du ma ah, ko jox dara kii nga jox ko 2000 kii non xoolal jox ko ab 2000 bu ndaw mu dem lépp lu may joxati nit kii du nit su dara lu may joxati nit ci sa loxo jox ma ko ma jox ko mu dem yow Cheikh yow dama lépp lu may joxati nit fii ci sa loxo bii lay jaar waaw duma ma joxanteeti kenn ak kenn nii de ma loolu yow Cheikh yow keroog ba nga toogee nu lay agressé ba nga toogee di nelaw nuy wax ci yow man xam naa ne nelawoo boobu man maa man maa tay tay lu di di di wax la. bi ci def mooy yow la nga doon wax sa dëgg la. yow yow dërëm da nga di nit ku bon. Ah, yow dërëm fi ma ànd ak yow lépp. jël la ah, jël la def la sama confident lépp lu may dox yow laa koy doxal lépp lu may def kii laa ko waroon di defal mooy sama rak direct. defuma ko moom ma jël la yow tef la ci sama wet. nga koy wor fu restaurant bu neex am yóbbu nga ma fa reer ma defal lay teraanga jox la xaalis. tey doo réer sa ñàkk puissance laa bañ man bu ma ko ji man boo ñàkkee puissance man lool xaw ma ci. yaa ko doon wax ah ah ba ah, xam ah, da ah, ngaa ñàkk puissance. yaa ko wax nu ma def ba xam yaa ko wax. ah loolu daal Binte wax eh, nañ ko ko. Binte di ma laaj ndax dëgg la ma ne ko waaye xam na ne man man euh, góor 100 pour cent laa góor yàlla eh. laa. waaw ma ne ko ab yàqkat nag day wax waaye euh, loolu mën ngaa dem damaa soxla caam mi. ah waaw demal. tey noonu. waaw damaa soxla caam. kii ku ma soxla eh, ci eh, moom ngay eh, jaar. waxuma ak yow de waaw waxuma jóguma léegi jóguma. jógal balaa mu laa yëkkati. jógal da lay yëkkati de. jógal dara. demal. dërëm doo dem. waay. waay. discipline que tu es. ah. loolu. defal sa poos. Therefore, suppose you eh, mais grand bi yorul dara grand bi vingt mille francs la may jox vingt mille francs billaahi grand dama dégg ma xool ko muy lem-lemal kii kii kii kii il faut ma jóg waaye kii kii. waaye ndaanaan dama ko fee gëj a gis. Seck waaw. pourtant Seck mi ngi fi ñëw de donte sax ni mu fi daan ñëwee léegi xaw naa wàññeeku mais bu yàggu ren ñëw na fi bu bu bu defee ñaari fan ci lay yem de. yéen da ngeen di ànd nit te du ngeen ko xam. Hmm. gis nga sekk. Hmm. ki awa naan ki ko ëmbal. moo ko jox xaalis pour ñu yàqu ko. Hmm. seet leen affaire sekk laa naan. wóolu ma ko ci dara dara dara dara dara bu dee danga xam loo loo xam ne xaw ma ko nga leeral ma ko ndax li ngay wax nii nag day dugg ci nopp bi génn nopp bi. maanaam sekk ndaanaan fom xaay bi ñu jox awap ngir mu kii loolu yi wax ñi nga wax ni daa xaw a dalul xel de. ay sekk kacamaa bu rëy la hmm. lii maa la ko xamal su ngeen ci bëggee xam lu leen leer caytu ko sekk mi bu leen rëccee ki ëmbal awa dina leen réer di mais loolu xam nga loolu leer na ba noppi ne euh, xanaa yëgoo loolu. waaw. awa leeral na sekk ëmb ko dog koo jingoon nag mais léegi lan moo waral sax nga jékki-jékki nag. Eh. mais li nga wax nii xaw naa yéeme de. xanaa xamoo ne moo joxe xadi baaba xaalis bi. sekk sekk sama xarit. waay waay waaye waay man daal xam nga lu ma bëggam lii ma lay wax ma yem suñu diggante ne yow da nga koo bëgg ëpp luñ la wax ci moom doo ko gëm. daanaka yow sekk fi mu ne nii bu ñëwoon tër seen waa kër gi rey sax bu ngeen ko doo ko gëm doo ko naw waaye awa mii ba fu ñuy sotti ay mbiram hmm. ah laa ilaah ilaah illallah sekk maa ko xam. mère li gën a wóor bàyyi ma bàyyi ma indi sekk sa kër. sekk lu ñu sama kër. léegi mère jamono bi ñu toll xam nga ban jamono la. ah mooy bu nit waxee dara ci nit nga gëstu ko mu leer teg ko teg ka ko wax mu leer. loolu bu ñu ko defee léppay leer ci àdduna. baay ma indi sekk ca kër bu ko defee loolu ñu leeral ko. loolu moom bu ci sax dugg. ndax lii nga wax bu dee dëgg la sekk dina ma jot sama dina jot sama jikko. waaw xam nga man damaa kitaabu woon ne waxu jàmbur dootuma ci wax sama dernière échéance a ngi pare naa ci dugg ci waxu jàmbur damaa bëgg lii leer sa bopp da ba nga xam ne sekk moom bu ngeen ko gëstoo xam ne la del seen rakk ji moo leen ko def damaa eh. mais échéance bi na nga ci boole sa doom de kii ne. ah waxu jàmbur mais wax c'est grave ah baax na loolu naa ko li jënd. waaw jékki rek bëgg fi ay waane di kan nga fi bëgg toom yow ah di mu day yàq sama der bi fu ne na waaye yow du ngeen ñu dimbali dimbali leen ñu waaye yow. kii est sa doom nekk hôpital nekk diggante dund ak dee nga toog fii nii doo fa dem seeti ko. mais dama ne boobu man maa jël sama décision boobu kenn du ma forcer naan da ngay dem seeti ko. dama yow yow xoolal yow da nga seet xaw ci nii wala ci nee yow. yoo xam ne dañ la bàyyi ci la nga maa la jur léegi parce yow xale bu ndaw nga léegi. waaw yow xoolal tu es né yow. yow da war a régler yow. yow doo nitu dara yow. waaw. tu as toujours été comme ça mosoo bëgg sa doom. xam nga loo bëgg sa doom yow xaalis sa doom su dee. sa yoon nekku sa doom su dundee sa yoon nekku sa doom su feebaree sa yoon nekku ci waaw tu ne penses qu'à l'argent. sa doom yëpp la considéré. waaw sa doom yow. defal li nga def waaw defal yow xam nga moom bu yow. defal très bien. xam nga da ngay dof dof lu yow. xam nga dof eh. dof lu yow yaay dof dof lu. Eh. ak ci attaqué ñëwal. Eh. ñëwal maa la loo maa la laal si man. waaw kii waaw ñëwal. yow ngay tapet. toogal ah d' accord. kii ah? xool sa doom. waaye ko doolal. bàyyi ngay def. di nga kii li nga ko wax dëgg la. waaw yow. sa doom a ngi feebar yow ñëpp a nga fay dem di ko seet yow nga toog fii demoo. newoo ma amoo paas boo jëlee taxi dem. waaw du problème mu paas. ku ku nekk bu ne doon wax dëgg kon waaye waay grand grand teg maa dimbali na grand dimbali ma quoi. xam nga kii. kii boo gisee may may may may ne ci moom di nab nabi ci moom mënuma koo bàyyi. Mm. mais kii jot jot na ma bàyyi ko. mais la ma sama yaay waxoon la rek. la waxoon mooy lan. ndax kii bu baaxoon. Mm. sama yaay bu doon dund mm-hmm. sama yaay du ko nuyu. waaw déggal déggal yow li sama yaay consigne la bàyyi yoon da nga koo topp. topp ma ko toppoo ko. ñaata mm. at nga dem ni may yi kenn xamul foo ne. topp ma ko kenn xamul foo loolu laay la. man li may def xam naa ko. ci bàyyi ko. waaw def lu ko neex. waay ci doonu moo xam moom. waaw daa ja. bu ma tuddati ah. daa neex. waaw. salaamaaleykum salaam. na nga def. ça va. ça va. na nga def. yaa ça va. boo feebaree moo woote wax nit ñi. ana jigéen ñi. jigéen ñi ngi fi ñu ngi ci ginnaaw. ñu ngi ci ginnaaw. waaw dama dama xool rek. léegi nag ñun ñëpp nañu bës suñu xol. delloowaat lépp ci yàlla. oo faatu na. allah a yow xam nga kay ñu ay bu ma ni waa yow. Ah, yow nga lem lemal nii. awa ah, dee da nga naan yow taxaw ñu naan la dëgg. la mooy la xamoo la ko wax. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. oo faatu na léegi. inna lillahi wa inna ilayhi suñu borom jël fa laa jóge léegi dërëm ngay wax ni yàlla jël xoolal billahi walaay taal léegi laa doon wax naan bu may jógee ci waxtaan bi falaay damay dem hôpital yow yaa ñime yàlla loolu laa nar yow a fen billahi loolu laa nar fan nga ko waxee yow sama war ah? gi man maa la ko wax man yaa ah? ma ne yaa doon wax naan ma di forcé nii bi da loolu laa naroon demoo fenn yow sa doom su dee yow xool yaa ko rey yow yéen lan ngeen xuloo waaw xale bi gaañu na ñoo ngi ci dëj li tax may tekki jigéen ñi ñëw ba ci yéen damaa xam ne nit boo koy tàgge tàgge ko góor ñi moo gën. dëj amul amul jigéen. Mhm. dëj doogu la. waaw ah. moom kay ànd leen ak seen sago. waaw mais attends aman ah, turu aw moo aw seeni. turu kan. turu aw ma ñenn ñi ñoo lay woore. a xam naa médecin bi la kan la nekkaloon foofu. médecin bi la jigéen ñi yaay ma nga fa nga fa. xaj na médecin bi la wuyu. allo mun la allo lan la wax ah waaw awa waaw kan ah ma baal laa baal naa la kan mooy wax ni awa ah, est-ce que du turandoo eh, yow yow eh, yow ka ka nga tàggee yow allo awa ah, waaw yow koo tàggee ah. awa moo de man awa moo de waaw waaw waaw d'accord dina waaw d'accord d'accord awa gëyee dem awa mii wootee dem. ko ku la wooyo. bii baat. su nga yow dërëm. hee hee. bii baat baat yow nga mën a duul yow. yow dërëm doo jóg yow. waaw man maa dugg ci hôpital bi di ñii triste toog ñii toog fee ñii ma ma yem ci ñoom. waaw ci laa wàññeeku ñëw tàggale. waa bu ñu toogee triste rek awa dem na. sëñ Habib. dina la gis de. maa ngi ziar. tey xanaa. Hmm? li wax naan lu lu kii di dox nawet. caam ñu ñëwati na. Hmm. caam dëkkati na. Hmm. ak i problème am. ah sëñ bi. toogaay jeex na. boutique bu mag laa bëgg ubbi def ci investissement bu toll ak vingt ou trente millions. kon de ñaan nangu la kon. ah boo jëlee trente millions caam. ah xam nga lijjanti rek. réew mi moom mi ngi noonu daal lu rek léegi nag saay-saay yi dañoo doy waar fan yi moom saay-saay yi jóg nañu te du ma ubbi buti bu toll noonu mën naa fa sax teg gardien mais mën nañ laa fekk bëgg bëccëgu ndara kàmm jël pistolet teg la ko damaa bëgg nga aar boutique ba danga koy aar boutique ba pare aaraale ma parce man man nag xam nga man dong laa suñu ma nee téll bal dóor ma ma ñàkk sama mbokk ñàkk ñu fàtte ma man càmm man rek la aar mm-hmm. ma sëñ bi est-ce que est-ce que loolu est-ce que loolu yàlla rek ma am ma yàlla xaw loolu daal loolu naan fetal fetal tul quoi tul tul ah loolu li ci dox kay lu gën tul sax laa lay defaral waaye jàpp ko loo ma ne ma téel mu wadd wadd bali wadd bali du tàkk sax nga ni wallaahi lazim du sax ah. du tàkk sax du tàkk incha allah du tàkk boo moytul fetal bi day yàqu sax. nga ni waaw yow sama nit nga mun naa la ko defaral. Ah. su ma ko doon defaral nit dina ma fay millions yu bari mais yow mun naa la ko defaral incha allah mun naa la ko defaral loolu du problème naa la defaral galaaj goo xam ne ci mbaaxu yàlla. Mm-hmm. boo ko takkee nga gëm ko. Mm-hmm. buñ la dóoree bal du tàkk incha allah. nga ni la ko defaral. loolu daal bu dee tul aussi bëgg ko. mun naa la ko defaral itam loolu du problème. mais ba tey bokkul ak tul bii takk teel la tuddu takk teel takk teel la tudd dana la defaral loo xam ne incha allah boutique boobu sàcc dana koy fàtte de dana la defaral loo xam ne dana xëcc clients yi incha allah dana doon lu naat lu barkel mais ñaar dina am non seulement dinaa la defaral lii mais di nga ma may defal li saxaar aussi xoolal la place bi li mu laaj ci sarax business bi nga bëgg bi nga bëgg a dugg muy investissement bi nga bëgg a def lan la laaj ci sarax ak ñaan ba xam dafa laaj ay kaamilu alxuraan dafa laaj xalwa wala dara mhm. ñu def ko buñ ko defee incha allah ak sarax yi ñu war a def lee moom ma defaral la ko jox la ko ci kàttanu yàlla dégg nga incha allah loolu daal vraiment mhm. moo doon sama sama kontaan naa trop non non waaw léegi xam naa ne boo demee waaw danga may yónnee vocal rek rappelé ma ko waaw ci sama numéro xam nga ko voilà 78 533 16 16 78 533. 16 16 ah yor naa numéro beneen bi mooy. Mhm. li ma lay defal tuddee ko takk teel ah. nga xam ne ku tiire du takk. Ah. dama la bëgg a ñaan dara. Mhm. kooku moom bu mu siiw. Mhm. xam tax bu mu siiw. Ah. du ku ne moo ciy jot. man du ko ne laa koy defal parce que boo ko defalee nit it mu dem ci banque ba di def yi ko neex su boobaa mën na indi ay jiyee ci réew mi moo tax du ko ne laa koy defal ku ma xamul wóoluwuma la xooluma ko ba xam lan nga koy doyee duma la ko defal comprendre nga boo amee it ay nit yoo xam ne soxla nañ ko ah. su boobaa ñoom bu ñu ko bëggee foofu ma def listixaar ba pare xool ndax ñoom mën nañ leen ko defal waaw wala déet mm-hmm. ba xam la ñuy wax da am lu ñu laxas si ginnaaw wala déet ma masoog lañ koy jox incha allah mhm. comme comme nga am xarit boo xam ne politicien la wala borom alal la wala wala mu ngi am euh, buti comme li nga wax noonu wala lu mu mën a doon wala muy doxantoo xaalis mën nañ ko ko defal waaye foog mu nekk tamit jullit nga baal ma mhm. foog mu nekk ku jullit dégg nga foog mu nekk jullit sax parce que kaamilu alxuraan laa koy defaree ah. kaamilu ndaw yooyu laa koy defaree loolu daa xam naa ku lul faatu waxtu moom aussi déedéet déedéet déedéet ci nekk moom du ci ba <laughs> bul tooñ waay déedéet ba nekk fi bu ko tooñ non non non am loolu léegi daal sëñ bi Afrique daal mën nga koy defal man yow moom yow sama sëñ maa baax na maa ngi tam jërëjëf maa ngi déglu vocal jërëjëf bu baax waay léegi léegi ma yónnee jërëjëf ok jërëjëf